ñuy wax sëriñ Medoune Seye borom taw fii. Ah. waaw. Ah. nga dëgg kay xam naa ko de sëñ Medoune. wax nga dëgg mooy borom taw fii. sëñ Medoune Seye day liggéey. waaw waaw. ah moom fa mu dëkkee sori na de ak fii nga nekk nii. ah <laughs> waaw. ah man de sëñ bi ko gis ko rek lu nekk jaral na ma ko. Ah. wax dëgg yàlla moom. ah bisimilah ak si toog. <laughs> toogal. da yóbbu.

dëgg yàlla loolu moo taxoon fi ma jógee sori na lool. mais hmm. jaral na ma ko man naa ñëw lu mu guddi guddi ma gis ko. Hmm. yàlla de buy defar hmm. ah day mel ni kuy yàq ndax yow jàngoro yi nga wax mu nekk ci yow pour man jarut ngay àgg ca ah, ah, sëñ Médou Seye borom taw fi di nga wax ah. mën ngaa yem ci man dong mii danaa la ko fajal ndax xamoo sax li la eh, guidé ba dugal la fii xamoo. di nga wax man dañuy wax alaaji Cafta Njaay dégg nga ko mboolem koo xamante ni fi mu toll yaa ngi ci réew mi danga wopp danaa la faj faj wu normal. ah alhamdulilah man faju rek laa bëgg wax dëgg neex yàlla. waaw man nag kalaamaa faj ku ne danaa la seetal ba xool li ngay wax am na wala am dëgg la maa ngi mujj. waaw kay. ah alhamdulilah kon kay doon wër dajeeg li may wër. ah yàlla baax na. waaw. incha allah na ngeen defar coono. sant yàlla mbokk yi main juga jógee côté Tivaouane nag. Tivaouane ah waaw kay Bakary ak dara man aram loo kumba jaam pendek mbay penda ak paate penda bëgguma penda xaar yàlla mi ci ah ñun danoo bokk ci giir googu. waaw waaw. Ah, ah mbaa xam nga seet ah man wax dëgg neex yàlla lu ma faj rek. loo ma jaral faju rek ñeenti ñeenti junni da lay faje loolu am solo ñeenti junni moom danaa la ci seetal jox la ci ay mbir yoo xamul ah. sa law boo ko laalee rek sama xarit la ah. garab yi bari sax dama ko woon yónnee di ah, mooy moom de wax dëgg yàlla liggéeyam mën na ko def waaw loolu de am na waaye nit ñu siiw ñi ngeen xam man damaa nëbbatu mhm. waaw damaa nëbbatu lool sax. am nga jàngoroy porox ndox tool. Hmm. maanaam luy déparé fii. di dox di ñëw. jàngoro jooju am nga. say teppaxit day faral di metti. Hmm? bu dul dëgg rek waxal. dëgg la kay sëñ hmm. ku ñuul kee ku xees ki ñoom ñaar ñëpp la bëgg. Oh, waaw. ñuul ke ku xees ki daal ñoom ñaan ñëpp la bëgg. ñooñu daal ñoo ma sonal man damaa foog ni ñooy sama rab. Mhm. tey ku ñuul ki. Mhm. suba ko xees ki tey ku ñuul ki suba ko xees ki ñooñu daal laay gis guddi gi. Mhm. loolu moom moo ma sonal kooku danaa ci am naa ci eh, eh, mbir boo xamante ne bu ma la ko joxe. boo ko laalee rek jeex. <laughs> waaw boo ko laalee tey tey tey sax soo demee na ko laal boo koy laal di sentir ni wér yaa ngi ci wér. dëgg la waaw waaw. ay soxla ci hmm ma gis nii de ci góor la ko doon gis de way yow mi la dal romb na tol kay set gi neen hmm. yow ya, mi da nga wara yokul yokul taw mhm. mhm. danga war wara yokul de waaw ah li góor di yokkulu iya, iya, iya, yooyu de war nga koo yokkulu bu dee dégg ngay olof da ngaa xaw a tàpp ndaar maanaam daal da moom daal war ngaa yokk lu daal <laughs> waaw war ngaa yokk seet gi loolu la wane. waaw waaw du loolu moom lu siy pexe sëñ mm-hmm. xam góor. déedéet wax mm-hmm. ah, loolu da koy kii ndax day da koy denc waaw ah, da koy denc te yooyu muy denc noonu bu yàggee mooy tax mooy waral tàpp ndaar googu mu def waaw ah, bu ko defee daal loolu moom xam naa ne ay kàddu la yoo xamante ni dama la koy dénk. bo mané bay ba suuf sedd nga wor génn su góor mm. mu ñew jégué la mm. waaw di la ruq-ruq yi metti mm. saxu la bo bo joggé sa yaram bi dina ko say xéwal dina ko rap dara top la manam tap nar gi donga la topp mm-hmm. doy di man aw borom keur di mom na la wax légui ni aw ma di non nan la fay def ak di dara neku ci da ngay xol ben boy rek góor gu deugal rek wa gu la meuna deugal rek ngeen nekkal ko bu ko defee moom loolee dina wàññeeku. ah waaw ko defee daal sama aajo dina. boo seppali tay tay tay tay jii nii boo ca jóge faroo rabba di dem ak yooyu loolu doo nga la jàpp. ah dinaa dama am fu ma ko jël dama jaaxle waaye xanaa ma ah doy na waa dox dëgg yàlla moom. ah sama ngone yi si kër gi sax xanaa boo leen kiiwee ñoom mën nañ la koo defal bu ma xoolee xaaral ma yëndu ba xam bu ci ñàkk nekkee bu fi nekkul man ma xool nu ma la ko négocier rek loolu kay la baax na ñu toog rek di ko déglu. man. Hmm. kii de genn gone fi nekk waaye day nelaw. day nelaw waaw. ñu koy fi mu pexe moom. Hmm. Hmm? am ñu day. loolu loolu si jàppalee daal ma jël wax dëgg. loolu rek ma ah, xalaat rek ndax man xam nga man dama cee yàggut def biir yaa yi ci nekk moom laay bañ mu dey. Eh, bëgg rab bi de wax dëgg ah man àgg ci biir rek ma xool nu ma ko essayé. ah mel ni daal fi mu ah mbir yi daal mu ngi noonu rek dëgg yàlla. man damaa man dama xam nga am na ma jaaxal. Mm-hmm. tàngaay mu métti mi am si réew mi lan la. dëgg tàng na. lool sax. ba pare weñ yi duñ la bàyyi foo noppale ko. ah weñ yi kat daa mel ni fi ñu doon nii. noonu gàttanoo ca néeg ba di la indi di la tëj ci sa yaram. Ah, daal. yow yaa bon yow nga ne ma mën naa laa faj. ma yëkkati sama xaalis jox sama far rab bii laa ko mujjee gént li ngay wax dara lu si dëgg yow nit ku bon nga traître nga jaam nga yow lii nga fi nekk noppi ma laa la wax yow da bon amoo dara loo wax yow lépp xaalis ni nga fi nekk yow nii ngay mbubboo yow doo nit ku baax sax noppi ma laa la wax nga ñëw fii nga tëdde ma yàq ma dama yàq ma man nga may faj taxawal taxawal yow doo ko nit ku baax sax na si pardon doo rus sax pardon maa la ko ñaan lan moo xew noo bàyyi jooy nga wax ndax sa a faju hmm. ma lan moo parce que kii fii laa ñëw. ni ko sëñ Madou Seye borom taw feex lay laajte. mun ma mën naa laa faj. ma yëkkat samay vingt mille francs jox ko expliqué ko li nekk si man lépp mun ma man naa laa faj yóbbu ma tëdd ma ba sama ma xet tali ma dara gisuma ko si. si biir kër gi hmm. ci lal man ñëw. Eh, eh, eh, kan musuma nangu xaaral tey nag damay aaru kan. na loolu naqari woon tey la lay. kan taxawee musuma ma si bu ci gaani xam nga dañuy wax nga ko joxoon. Eh, eh, nga ko joxoon dangay déglu kii xam nga dañuy wax maam Kumba banque rab la. Eh, maam Kumba làmb ndooy bag la rab la kii aw rab la daal ci dugg fii boo xoolee ni muy waxee nga xam ne kii wéru kii mu may soso moo am yow xam nga kan kii wérul la ay wooy yàlla tif mais ma pare nga daaneel nga wax nga ba pare daaneel nga kii ban fit la am ak ban audace la am ba jaagal jaal dugg sama biir kër fekk fi triple jeeg toog mu nan yaw ya ko tedd tedd woo ko man ben jeeg yabuma man xale ci bu sew sax yabu. kon da nga gëm ki eh mu te jël sa gem lu la way waxal yaw la. ay way ay way ay way ndax man ay man man baabuma dee wa man mi ci ma woote wala wa comme bi ñoom waa man mi ci ma lok lam set ma de ben yo jox ma fi xaliss ma jox ma doomu jàmbur nga tëdde noonu ba pare. tëddeewul maa ko. déet ak man la moo nekk ci man loo xam ne nekk ci beneen jigéen ah jox ma xaalis tëddee woo ko de waaye xaalisam du génnee nga ko. Hmm? am soxna si te lenn rek laa la ciy tegal mooy gis nga jigéen surtout nga nekk janq toll sa buntu àdduna bàyyi kër goo gis naam dara ne wala ne seetkat bee day seet wala kii bee nga def say nga def ñax say tànk dem. xalé bu ndaw du ñëmé sëriñ yéen da ngeen a teel a ñeme seen te dund te màgg li mo tax ngeen ñam loy wota ñam li mo tax ngeen tej loy wota bay dama kontaan na rus naa la ci torop waye kon dina metti torop ndax man seetu mako sëriñ mirum sey laan sét mu ma man na la faj waye rus naa la si torop nit ku bon ki nga ton jéggal ñu ko jéggal ñu ko dama ko doon won ay wen fan la war a ne lu xool dong ak ah, do nga mais comme war nga ko ay taat fan la war a nekk baax na. <laughs> nga mel nga xam nga fi wal fajri la léegi mooy ay roño si suuf roño bi fii da ngay loolu boo ko gisee nii mooy mbàq bi nag ñoom sëñ Medoune nii boo gisee mbàq bi waaw hémorroïde bu nëbb bi ak bu feeñ bii bu feeñ bi la naa. kon yow yaay seen manager bi ma gis ci télé bi muy jàngale. Eh, lan mooy amorite ak ah. ak affaire yooyu ma sëy ay du ma sëy. ah bi fii la jógee. ay yoon nekkul si. ok. kon da ngay seetalaat doo ma xoolal ba xam wala lan laa war a saraxe. Ah, yaa ngi da nga am xam te waxoo ko nit ñi <laughs> xale bi taay fi nga expliqué ma neexoon na. loolu nag nga waroon njëkk kaay bu wax bu ngeen bàyyi maanaam bu ngeen dégg rek jàppale kii la man de damaa war a continuer def seen cafka waaw kanin ci biir de tey sa néeg laay fanaan comme da ngay di laalaan